kañ waaw woo na ma jour jour bu amee doom sama jour ngeen la ci war a am doom la ma ko wax si biir ngeen la ma ko wax. mais si sa ñëw bi tamit dafa bett waa géej waaye ba ñu jàppoo ni peut waa kii di euh, Fils ba moo du teew. lu may bettee loolu loolu par force la loolu par force la Lirou xëy na mu xëy mu ñëw loolu par force la a am kenn ku ah bu amee bés dañuy taxaw kon bu xëy na ñun a ñëw loolu par force la amul sax monsieur Bissaka ba bi tuddee rafet la loolu rafet la. war naa nekk mais ku ne xam ne bërki démb ci semaine yi de Balla génn def ay révélation yu a waar mu jëm ci Balla Gaye te ngeen bokk géejawaay bokk liiru jaan liiru jaan defaat lii yow sa diggante ak Balla Gaye loolu laaj nañ la mais loolu moom wax dëgg lan la ñu si waxaat ndax loolu wax nañ si ba pare waaw moom loolu moom lañ si passé ci xool ci leneen am naa. mais Balla dafa revenir ci kàddu. waaw dellu si waat mais moom Samba Alla ñu ko wooyee du ndeyam ak baayam rek ñoom comme la amul anyway. Ah, voilà moom la ñu si wax. mais si si ñëw bi tamit est-ce que mën na ci xaar ñu gis Balla dem fekk fële Balla rek mu toog ñoom ñaar ñu joxantoo ko jël ça dépend rek. waaw waaw. ça dépend rek. ça mais li nit ñi xalaat mooy fils de Balla am na lu mu jàppal Balla Gaye de. jàppalu ma ko dara amul lenn lu ma jàppal. dara nekkul ci dara amul dara dara lu ma dara. sa grand frère nga war koo jox loolu sama grand lay musa nekk. loolu sama grand lay musa nekk amul benn lenn lu ma koy manqué respect. pourquoi nu ngeen di si base bi. maa ngi fi taxaw sa diggante. waaw ah, xaw waaw liir looy laaj liir loolu liir moo ko loolu. amul ñu la woo yow. man am na ñu la woo ko quoi. nee na yéen xale yi a jox cër parce que rakkam ngeen moom béy na waaram géejawaay. waaw ñu ngi ñaan yàlla béy suñu waat hmm. loolu la ñu ñaan waaw. yi nga wax est-ce que amul dara loo ciy regretté. comme lan. suñ ko traité ko. non oh, même pas amul lenn lu mu ciy regretté. ah bon non non. ak loolu coow amul ciy regretté. Oh, est-ce que loolu kon dina yombal seen diggante. waaw ah, xaw ma ça dépend rek ça dépend rek. ça dépend rek. ñu bari nee nañ Fils de Balla dafa màgg jël yoonu boppam. parce que li muy doxalee nii non question question jël sa bopp sax yoon sa yoonu bopp. li fi nekk laa wax rek. ci nekk laa war mais jël ma sama yoonu bopp ah. kon ba léegi kàddu yi nga waxoon da ngay confirmer waat eh, amul lenn ma ko suuf jëlee. ok ay tenor la nekk waaw boo bëggee léegi dégg nañ ko uuf seen rax comme yeneen mbëri nu ñu uufee seen rax. ba kenn doon génn leen classe. nañ ko uuf seen rax yi noonu. gis nañ fa ay mbooloo gis gisoo kenn ku ko classe. uuf nañ seen rax seen rax lu ñu xewloo ñu taxaw si. entraînement ñoo si jiitu combat ñoo si jiitu voilà. ñu bëri dañ ne Balla Gaye lu mu demoon kër Boy Niang moo waral coow lépp est loolu sama yoon nekku si loolu ñoom ñaar la. loolu du ma si sama yoon nekku si. dana dana jàpp ne kii di Balla nu mu waroon a uufee rakam yi uufee noonu. man waxuma uuf na dama ne mbër da ngay mel ñoom Modou Lo la wax comme ni ma xalam. waaw mais yéen ñaar yéen ñaar uuf leen. mais yéen ñaar ay doomu ndeygeer bu ngeen gisee tey ba de dem ba tuddee sa bopp. Ah, loolu loolu yàlla ko ba pare. ba ba pare ah, say loolu moo ko war loolu par force la mu ñëw voilà ndax man bu ko ji loolu loolu par o la. mais lan moo dox ci diggante bi kon. ah lan moo waral wax kon lan moo dox moom mbéyte moo ko. ku am na droit am lu la métti nga wax ko. mais c'est timide am na la ko wax lu dama koy génne mu jóg. après ñu jàll si leneen est-ce que rafetul nga félicité na ne ça dépend rek su ma si biir rek xool situation bi. carrière fils de kanam est-ce que digganteem ak Balla Gaye dina rafet. waaw xaw ma rek ça dépend rek. waaw rek. si yéen gars si yéen gars. Sa Thiès dafa ñëw léegi taalal ko ci borom. sa diggante ak Balla Gaye mu ne ni ngeen mel yéen waaw moo tax loolu moo tax mënul see wax mënul dara sax Salif sama nit la voilà Salif mënul dara sama nit la sama xarit la sama lépp la Salif ko moo du suñu xool ma kon mënu ma wax dara si teg ku ñaaw da ko teg si ma xam su sax laa ko jox benn cër bi moom moo tax amul lenn loolu lu ma si tontu di si wax si diggante Balla ak fils de waaw am naa combat waaw am naa combat incha allah waaw sama patron sama papa moo ko tëgg Kañ production waaw moo ko tëgg Kañ production. mais loolu bi nekk la moo fi sës. kon sa xale woon ci ñeneen ñu. waaw am na ñeneen ñu mu nekkoon wax dëgg yàlla mais sama moom la ma yàlla booleel naa bëri après ma xool leneen. mais pourquoi moom gars yi dañ laa ragal wala. Ah, koo koo ne Fils de Balla la mu bañ kañ. mais Fils de Balla mais waajtaayu combat bi waajtaayu combat bi. fan nga ko nar a waajalee fan nga ko nar a. ça dépend rek. ban équipe lu ban équipe. équipe ba ba léegi Ikiri Balla Gaye. ma. waaw mais déedéet Balla Gaye mooy bi Ikiri bi moo ko moom. waaw am na. pour ñu entraîné fa. loolu am na. mënu ñu entraîné Balla mënu Papa Ikiri ñoom Papa Faram pour am na droit ñu Ikiri Balla Gaye ñun am nañu droit dem seen Ikiri entraîné. waaw gis nga ñun ñëpp benn lañ loolu moom école ma moo fa bokk woon waaw mais day seen diggante ratax pour mu mën a gën a neex. ci ah, loolu du problème loolu yëpp du problème. Ah, loolu du problème. sa diggante ak la Rose euh, ci yàlla bëgg a laaj tuuti rek. waaw oh. boo xoolee jamono yaa ngi la Rose faroo parce que jamono muy sa ginnaaw kër pour yéen a def jamono ji ñu toll. waaw oh. sa diggante la Rose tax nga jël combat bi la Rose gëj ci làmb nga gis li mu bëri ak pexe ci combat bi pass. waaw ah, mais loolu dañ la Rose mbër la champion la Rose li mu def ci làmb defuma ko te bu ma demee day bëri ak moom tamit damay sant bien vrai que say tool mais buñ fàtte luñ fi def. nee na nga amoon problème boobu ngeen demal. man man ba may ñëw fekk na sama lépp mat far yàlla loolu ñoo gën sa loolu su mu gën a neex kon man am problème mu ngeen de. mais combat bi pare nañ ko mu wax laa ci sant rek laa ciy liggéeyal. mais laa ci Balla Gaye liggéeyal ko rek jërëjëf. laa ci sant Alioune génn moom tamit am kàddu yoo xam ne wax na ko kàddu yooyu sa grand frère wax. waaw ah, moom waaw deret deret day sot deret day sot deret day sot ñoo bokk ndaw ak baay bu ñu demee rek xam ne comme ne da ngay am na droit génn wax loolu la nag sama mag la ñoo bokk ndaw baay daf daf maa bëgg daf maa bëgg moom sama sa kon bu wéree loo mel. warul taxaw fii si naaj bi sa sa mag sa warul taxaw fii si naaj bi ça dépend rek dama dugg si base bi léegi dama dugg si base bi léegi dama dugg si base bi léegi ñëw ngi ci base ma Samba yoonu ma dem ba nekku kii am na droit fekk magam toog mu ñëw na ko jox loxo loolu yoonu kenn nekku kii suma rakk la kii yaakaaru géejaway la kii lu Balla Gaye am ci géejaway kii war na ko am ci géejaway léegi nag damaa bëgg ngir yàlla rasulullah rek dama leen ko ñaan ngeen may ma tuut rek bu leen ko ngeen bàyyi boo xam voilà voilà. ah dama ci biir loolu du wax lu mu gën a rafet laa ngi noonu ñëw ci bisu liiru jàng Thank you.

waaw eh, mbooloo bi mbooloo bi